mbokk yi tey nag dañoo seet si koo xam ne yaakaar naa kenn du ko présenté Sénégal muy Soxna Awa Fall la grande voyante nekk fii ci Maris yaakaar naa nag euh, àdduna Sénégal war nga xam nañ kan mooy Soxna Awa Fall rawatina ah Coupe d'Afrique bi ràññee nañ ko bu baax a baax muy koo xam ne ah yàlla may na ko ci seet yàlla may na ko ci ah xam-xam boo xam ne macha allah lu mu wax ah jubóog suñu boroom tey nag seet si ko saa ne lépp loo xam ne ak actualité bu amee ci réew mi rek dañ koy seet ci waxtaan ak moom tey tey nag ma ànd ak sama caméraman Ousmane ànd ak Dakar Midi ànd ak Click Dakar 221 tey ñu war a waxtaan ak moom parce que moom ci ñun yaakaar naa tey nag ñu war a waxtaan ak moom ci tolluwaayu dëkk bi ak xam-xamam ak ndimbal bi nga xam ne li nga xam ne mooy àdduna ak sénégalais yi soxna Awa Fall nuyu nañ waaw maa nañ di fay di leen jox seen waay di nuyu nag àddina war ngal këpp di nuyu kilifa yi di nekk kilifa aada yi di ñaanal nag ñi nga xam ne ñoo tëdd ci loolu lalu hôpital yal na yàlla fëgg seen bopp ñi nga xam ne caabi di leen féete ginnaaw yal na yàlla teggi leen nattu ci daraje Seydina Muhammad di ñaanal eh, lépp li nga xam ne kilifa diine ñaan ko ci dëkk bi yal na ko yàlla def barke ci dëkk bi defal ñu jàmm ak suñu Euh, doomi réew yi ak doomi bitim réew yëpp ñi nga xam ne dañoo jóge fi dem bitim réew yal na yàlla def ñaan gi yëpp fekk leen foofu ñu nekk ak ci wër àddina wërngal këpp di ñaanal ñëpp bépp jullit ñu ngi lay ñaanal ci daraja na Muhammad da yàlla def fi jàmm ju bare bari di la ñaanal yow idali di ñaanal seen site bi yàlla def yàlla def ci jàmm seen sit bi yàlla na ci yàlla def jàmm te yàlla na ko jëm kanam ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li may merci <laughs> sama <laughs> nga koy eh, yow Idali Say da ngaa bokk ci man comme ni mu ko waroon waxee saa su ne yow danga nga di gën ci man baax loolu ci man bi ma la xamee ba tey rëccu ma lu tax ma doon la xam ah, génn naa wax ci interview ne leen i xëy na dafa juum rek ah, moo waral lool lii amoon am dañ ciy dugg dañ ciy dugg parce que xam nga dama ko waxoon tey tey yàlla def na yaa fii Eh, ngay taalibe Serigne Touba newoon naa la du yàgg te di yàlla dina defal jàmm incha allah te yàlla ñëw na ci yow ndax nit ku baax nga dama laa fekk sa kër nga may fekk sama kër ñu yàlla boole ñu ñu ñu séq àddina te nit na bu la yàlla séq ak nit ngeen séq àddina sit bu ne sit bu ne sit bu ne indil nga ma ko fii ndax ku ku gërëmul doo gërëm yàlla nit ku ne da ngay gërëm boo gërëmul rek doo gërëm yàlla gërëm nit ndax bu dul nit nitay mooy téye ci loxo nit yóbbu ko fu sori nit nit moo mën a yàqal doomi aadama waaw nit mooy mën a mooy nit nit mën na ti nit yóbbu ko fu soree sori waaye mais nit ku baax nga yàlla dañ lay ñaanal yàlla nag lii fi jaaroon cat rek la yàlla na ko yàlla teggi yàlla fulal la ko defal la ko jàmm ak salaam defal la ko teranga fulal la sey mbir bopp ba nga ba yëg ba nga yëkki sa bopp ci daraje Seydina Mohamed newoon naa leen taalibe Serigne Touba la newoon naa leen nit ku baax la dafa juum te ku ne xam nga nit rek ay juum yàlla rek a dul juum mais nit day juum newoon naa leen nañu ñaanal sama doom ji te ne ko ñëpp jeggal tey nag yàlla defar na lépp lépp rafet na ki nga xam ne mooy ko yéen mun sa safaan ba dañ naan nee na yéen a nekk la borom a ciy fanaan tey fanaan na ca loolu dama koy rox sama yaram dafa tàng damaa kontaan bi nga ñëwee danga maa kontaan sama xol sedd bi nga ñëwee dama la parce que la ma waxoon moo am dama waxoon dafa yàlla dafa def nga firndewaat ko ndax dama ne woon Idrissa sama doom la Idrissa sama nit la yàlla ma booleeg moom mu boole maag nag àddina wër nga këpp nag Idrissa ku ma jox loxo rek ne ko salaamaaleykum bokkuñu ñi nga xam ne ñoo tax ma jox leen loxo dama ne ku gër ku nit dafay euh, il faut pas être égoïste dans la vie il faut da nga il nga am am grandeur taxaw ni ah man a diw mi kat jaaral ma fii jaaral na ma fii kenn mënu yàlla rek a mën ku fëgg dina yaa mën lépp waxoo dëgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax mi nga xam ne moom moo doon gën gi bindeef balaa def dara yàlla da koy déey mbaa mu yónni Jibril mu ñëw ci moom kon xam ne ku nekk xam nga ne yàlla mën te mooy defar na la yàlla taxaw jërëjëf Seydina Mouhamed taxaw jërëjëf merci li nga wax ci man yëpp nekk lu rafet loo xam ne macha allah yàlla bu baax a baax mais ñu dugg ci waxtaan bi rek dugg ci actualité tuuti yaay booy macha allah te yaakaar naa du ma la présenté waa li ma wax rek seet bu mag seetkat bu mag nekk fi ci euh, euh, Maris yaakaar naa eh, gis nañ lépp macha allah tey ñu fekk la tey nga teg li nga xam ne mooy ay say say petaaw ak say bagage tey boo ñu doon wax ba ñu dugg ci waxtaan bi bagage yi nga teg pour lan la. waaw ku ne xam nga soxna Awa Fall ci petaaw nga ko xamee seet yàlla may na ma ci seet may seet macha allah di ko sant yàlla ko julli juli juli juli ci Seydina Mohamed li may wax saa su ne rek man samay mbir dama ko teg ci yoonu sartal mustaqim ndax lu waay mën rek yàlla tax nga mën ko ndax boo ne yaa ngay seet day fekk nga am wér bu dee yaa ngay seet day fekk nga am esprit tranquille boo ko amul mënoo seet kon nag bu la ko yàlla may da delluwaat gërëm yàlla suñ borom lii ma yàlla may nag yàlla ma ko defal moom yàlla suñ borom def ma ci ay teraanga te lu ma ci defal nit wala nga wax ko ci nit ah musuma ci am tànki ma tax na naan sama dënn déedéet ki koy ñu koy consulter wala ñi nga xam ne ñoo ñëw ci moom dinañ xam ndax a wala mënul man du ma fi nekk di fëgg di naan maa mën lii wala maa laa waaw kii man day fekk ñi nga xam ne ñoom ñoo soxla kooku ñi soxla soxna Awa Fall di ñëw ci man di ma di ma di consulter wu man xam nañ koy soxna Awa Fall muy ci wàllu pétaaw ci wàllu parfum loo ma ko tegal dama la ki seetal incha allahu rabbi waaw damay seet ci parfum loolu yàgg na ci samay interview yu bëri xam nañ gis nañ ko ci waaw da damay seet ko xam bari na ñu am na ñoo xam ne ci parfum laa leen seetale am na ñoo xam ne du ñu laal pétaaw ci parfum laa leen di seetale ku nekk extérieur tamit ci parfum laa lay xoole wala ilaa bu fekkee ne da bëgg ci parfum dama la seetal ci parfum muy xam nga parfum déedéet doo piis da ngay yëngal rek di dóor muy dem da taxawal ko rek damay taxawal na maman d'abord indi parfum bi wan la ko da yëpp bu mu jëru ko noo tudd sa tur sa sant ñaata at nga am jeex na fa laay dem kase man nekk naa ci rajo di ci seet du ma laaj tur ak sant yow mi barke sëñ Bamba fay woote nga ne bërëb sàngam laay woote ñaata at nga nangam at nga ci laay xuskunu ci laay la xoole barke sëñ Tuubaa ay sant yàlla sant yàlla ku ne ku ku ku weddi loolu dugal ci dugal ci waa kër Ndella Madior Diouf ca rajo ba ma nekkoon li ma li ma du ma la laaj sa tur du ma la laaj sa sant parce que rajo la ñëpp lay déglu moo tax dañuy def loo xam ne sutura lay nekk sa at ñaata la toll fan ngay wootee nga ne bërëb sàngam yaay laay wootee yaa xam nga nekk Dakar ne sàngal kam laa nekk su suñu yoon newul ci loolu at yi fu mu toll sooy door ak dafa am loo xam ne du doon ay pétaw mais rawaan la ñun dañoo may rawaan te boromi rawaan bu la mat bu la bu la xoolee da lay gis ala ak kuli alin mm-hmm. ñun la ñuy won du pétaw c'est que nag c'est moom moo ñuy won chemin bi waaye lay wax ak ñun du petaaw barke sëñ Tuubaa kii wax ak yow ba jëla wax yow noo tool noo mel kii wax ak yow ba wax la sa teint couleur sa teint couleur nu mu mel wax ak yow barke sëñ Tuubaa donc samay samay tiñaa xam nañ li may wax ñi may xoolal ñoom xam nañ koy soxna Awa Fall te xam nañ ne may seetee man dama lay xoolal wax la lu mel ni mi dégg bànjool yi yaay fëgg sa loxo na ma awa mën a naam nga mën a man lu mën a wër gis naa ko kon sant yàlla Sénégal xam nañu macha allah yàlla may na mhm. wax ak yow yi nga xam ne moo taxaw instant yi nii euh, combat lamb ji mënoon naa ne xawoon na suuf tuuti. Mhm. mais diggante Balla Gaye ak ki nga xam ne Boy Niang suqil na lamb tey ak ah Gaston production gis nga nem def keroog Serrano mhm. yaakaar naa Gaston def lu rafet euh, euh, bàyyi si yëpp yu ñëw keroog ci li nga xam ne mooy face à face bi muy loo xam ne sénégalais ak àdduna yëpp ko rafetlu di mhm. wax Gaston Mbengue ñu ngi lay char ñu papa nga ki ñu lekk nga ñu ànd ak Makan sa doom li nga xam mooy liggéey bi nga liggéey Sénégal ci làmb ji mhm. muy làmb xam ne dafa ampleur mhm. muy balagay ak fi nga xam ne mooy boña muy diggante Pikine ak fi nga xam ne mooy Géejawaay mhm. yaakaar naa ba ba léegi ay tani lu ne ci keroog jàkkaarloo bi am na yëpp ko seetaan tey làmb tey lan nga ciy wax ak lan nga ciy gisagum instant yi li ma ci gis de euh, actuellement euh, Balla gay moo yor ndam li ci taxaw ci taxawaay bi nii moment bi barke sëñ Bamba Balla Gaye moo téye moo téye ndam li kañ nga dama seen seen jàkkaarloo rek Balla gay door na ko ci ay jàkkaarloo xam nga du wax bi du affaire bi du wax kase déedéet te ku xool Balla Gaye xool taxawaayam euh, gis na mu daan doxee ak ni mu doxee bi yoon ñu defe ne ragal la déedéet dafa am te beneen taxawaay Balla dañ koo sangaat defaat ko beneen nit mu taxawaat te dégg ne aw faal waxoon na ma waxoon na ko du may faral di wax sa ca mbiru làmb waaye tey danaa wax ci kàttanu suñu borom Balla Gaye dina dóor dina ko daan daan bu rafet bu jeg bu bu bu kenn dul xaar yaa ngi sóoraale vaar. maa ngi sóor vaar ndax man soxna Awa Fall du tey laa toog fii ci euh, ci écran écran jaaxaluma de sëñ bi <laughs> déedéet écran jaaxaluma. mais daal li nga gis mooy Balla moo téye. Balla Gaye actuellement moo téye ndam li barke sëñ Touba. billaay walaay du ma gis ci sëriñ Touba ay fen te après lañu ñu wax ne soxna Awa Fall di ngeen ñëwaat fii na ma soxna Awa Fall la ma waxoon tey am na ci kàttanu suñu borom. wax ji doon wax ay mbër di ñàkk moo tax na gis nga gis nga boo ñaari ko wax li ma la wax man nga war a xam ne kon bala beneen Balla lay sandi tekk bi tek bi dañ ko dañ man merci beaucoup yaa ko yaa yegg li sa bopp te bala Gaye incha allah rabbi di ngeen gis yeneen facette ci moom man maa ko wax man soxna Awa Fall dafa changé changé ne dafa sanguwaat tëggaat boppam melaat beneen bala Gaye parce que xam nga nag gis nga Balla dafa yàgg nag ci ci ci làmb gi te léegi kilifa la ci ah. dama ne kilifa la ci léegi dëgg neexul te kilifa dangay wane sa bopp nag nga xam ne yow kilifa nga waaw ku ah, ne xam nga ne Balla Gaye Balla Gaye dama dama yàgg di wax ci moom boobu lay door a génn ci site boobu maa ngi door a dénn génn ci site mhm. déggante moom ak euh, Modou Lo mm-hmm. ba ma leen waxee ne ne leen ko dana ko daan toog ci kawam di sinap defe naa ne ba ma ko waxee keroog bës ba ma am kenn mësuma ko am ci àddina waaw <laughs> déedéet sant yàlla dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax déggoo man la wax mu yegg yàlla la neex sëñ bi déggoo wax ji xanaa kay ku gëmul yàlla doo ko wax ku amul imaan doo ko wax man dama gëm suñu borom te xam ne tey ñun ñoo ko moom dañu ngi ci tey mais ëllëg yàlla ko moom mm-hmm. li xew ëllëg yàlla rek ko xam waaye li may li ma yàlla may nag foofu laay waxee ndax ku nekk da yàlla da koo may. mais ñu gis ne Balla mhm. ah. dina wuute de. ñaawoon na trop dama ne la dina wuute. te sunu kanam la nekk nekk sunu ginnaaw. xam nga booy ñaaman daf ma nekkoon xale bu ma gën a neex dafa neexoon ci làmb bi. Mhm. à sa façon de faire daf ma neexoon waaye làmb ji nag moo ko wane du far parlo ah, mais dëgg gi dañ koy wax. su non non non non c'est pas ça non non bul ma diaboliser ak non non non attends attends ñu def ndànk rek. mais dama ne la dama ne la euh, non non ne dites pas ça ne ma diabolise pas bàyyil noonu rek ma wax ak yow du noonu. Euh, ki nga xam ne booy ñaa la man def ma mos a neex. Idali laay waxal xam naa la bu baax Idali <laughs> xam naa la bu baax. xam naa loolu. waaye dama ne la booy ñaa nekkoon na xale boo xam ne neexoon na ma trop. Mhm. waaye bu nu waxee ci mbiru làmb ci lañ toll. ak mama fan la fan la affaire bi féete. Mhm. ma ne Balla Gaye ko téye actuellement. Barke Sëñ Tuubaa moo ko téye actuellement. Hmm? Mhm. su deful def attention tuuti ci suuf la jëm dina ko daan daan bu rafet bu mucc ayib man Fall maa la ko wax. ah, ah après lay comprendre ci kanam la après lay comprendre dafa changé ay facettes. Euh, Balla da ko humilier ci wax maanaam wax ba boo ñaanaan ko mënoo ma euh, déstabiliser. bu la déggee su ma la waxee ne la seetaanu ma euh, émission boobu da naan non non. seetaanu ma ko mais dama wax li nga xam ne dama ko seet avant ngeen di ñëw. Balla Gaye actuellement moo téye flambeau bi. Hmm. bul sonn. man maa wax lii man soxna Awa Fall. bon loolu wóoru ma du ma wax lu ma wóorul du wax lu ma wóorul waaye ku ne xam nga ne sarax am na fu mu jëmale doomi aadama ku ne sarax baaxul daa fekk doo saraxe sarax ku ne xam nga ne day fànk dee te ku ne ku nekk ci làmb te saraxe ci suuf nga jëm ku nekk ci làmb gi te saraxe defoo ay ñaan ci suuf nga jëm man Fall maa la ko wax waaw. Sa Thiès ah, da koy dóor ci kàttanu suñu borom. da koy dóor wala da koy daan. da koy daan mooy mooy li ma la wax rek da koy daan. ñoo ko moom ñoo ko moom. Ah! ñoo ko moom. Sa Thiès moom ak Reug Reug moom bul sonn da koy da da koy day daw ci kawam da koy dóor da koy daan. day dal ci kawam da koy dóor da koy duma. da koy daan. du caaxaan la leer laa la wax surtout Sa surtout Sa Thiès na ñëpp def attention ci moom. mbër mu doy waar maa yow ma vaar bi yow yaay ñëw ma ne bu vaar jotee na ñëpp ñëw mhm. incha allahu rabbi duma waxantu ah, ku ma xam soxna Awa Fall xam na bariw ma sax ay wax ci ci sët yi yow yow indi yaa jël si du ma woote sax naa leen kaay leen déedéet du suma jikko mhm. waaye li ma la du dañ mhm. ci kàttanu suñu borom saakees dina jaar ci kaw rëg-rëg teg ko ci suuf man faal maa la ko wax ci doole rek la koy bëri la koy la koy daanee ci doole moo ko ëpp doole du benn moo ko doole moo ko ëpp technique man faal maa la ko wax ci kàttanu suñu borom Ama Baldé lamb yu bëri àggul euh, ji bi yoon. li ma gis nii mooy que na làmb day jógaat day suqalikuwaat day jéenam. ma ne day jógaat xooma ci Gaston lay doon xooma mais làmb gi taxaw na fu mu war a jógaatee day jógaat. nooy jógaat day jógaat. day jógaat mais bu football ñëwee sa lamb wàccaat. wàcc lamb wàccaat. fenn ci kàttanu suñu borom néew ñoo dañuy jël coupe du monde de waxuma ko de waaye ci kàttanu suñu borom dinañ yegg foo xam ne fu sori lay doon ci ci ci coupe du monde bi soobee at dinañ sori dinañ fa am ndam xam nga sori ci sori ci euh, coupe du monde dafa nekk lu dafa nekk lu riche parce que coupe du monde du du du déggoo li ma la wax lépp nga ci surprise nga ci biir mais loolu duñ ko xoolaguñ ko léegi moo tax ma la may dinañ yegg fu fu mucc ayib gaaw ma du ma bëgg di gaaw di wax lu baree bari waaye buñ demee ba war war caa yegg da ngeen ñëwaat fii ci kàttanu suñu borom di ngeen ñëwaat fii man soxna Awa Fall ñu gën cee waxtaanaat mais actuellement nii bu duggee ci wàllu coupe du monde bi incha allah rabbi dinañ fa gis lu mucc ayib waxoon naa ko ci bële passé ci beneen interview boo xam ne defoon naa ko waxaat naa ko incha allah xale dinañ wane lu mucc ayib ci kàttan suñu borom. dëgg la amoon na tuuti amoon na tuuti amoon na tuuti gàllankoor ndax cat bu rëyul semmel dégg nga wax ji cat la waaye liggéey du ko jàpp parce que dafa am ñu ko ngemb attention déedéet cat koy sonal dama ne la da koy cat ko sonal mais liggéey du ko jàpp man Fall maa la ko wax ne woon naa la eh, Sadio Mané du sol lu xam ne amul rouge wax naa ko fii du sol maillot boo xam ne amul rouge waaw kenn lañ mooy nga sëñ bi bul sonn la mu àndal la ruus boobu di nekk ci ci mayoom la mu àndal la la mu àndal dafa bëgg a xonq xonq mooy couleur ku nekk sa couleur loolu mooy couleur am li fekk muy am rouge fu mu fu mu songu da koy daan ci kàttanu suñ borom cet nag bu rëyut semmal cat xawoon na ko jàpp tuuti rek tuuti rek mais daj leneen actuellement jógaat na mi ngi dox te mi ngi doxal ci kàttanu suñu borom trophée ngeen di xaar toog leen ngeen xaar da ngeen koy gis ci kàttanu suñu borom ci Sadio Mané bu neex rabbi sama waate allahu rabbi te xale dinañ dem dinañ def lu mucc ayib ci ci coupe du monde bi barke sëñ Tuubaa te dinañ def lu mucc ayib man Fall maa ko wax incha allahu rabbi <laughs> ba léegi rek macha allah ñu jóge Mm-hmm. ba six euh, mm-hmm. euh, mm-hmm. mooy li ma la waxoon naa leen dañoo bàyyi libéré jinne yu bon yi dañoo libéré jinne yu bon yi ndax mutum alal libéré nañu jinne yu bon yi ñooy wër di taal ak di rey xale yi ñuy reyante ci seeni biir ne woon naa leen nañu moytu bu baax na xale yi tegu ci yoonu mi sa misaxiim waxoon naa ko de teguñu nag ci yoonu siraatal mustaqim moo waral ay ga dégâts yi ngay dégg accident yu métti yi ngay dégg rayante bu bon bi ti kon kenn du xam sa morom tax nga ray ko bu la ko waxee nga ne ko lu ndaw ay tax nga rey nga rey bakkan ak bakkan nu mu fooree lu ndaw lu ndaw a ndaw doo xam lii la di tax lu lu yow sax bu la ko laagee tu te pose les questions lan laa lan la ma kii da ba ba ko mm-hmm. donc euh, euh, na nit ñi bàyyi xel ci loolu dañoo tekki fa ña xam ne mag ñu baax ña fa ñu téye woon nit jinne yu bon yi dañ leen libeere ndax alal ñu dugg nag ci xale yi di di laamasu xale yi di reyante di génnee deret bu ñu gisul deret du ñu nekk looloo waral lii ma la wax nii taal beeg yooyu yëpp ay jinne yu bon a koy def yëpp ay jinne yu bon a koy def moo waral eh, gita ngaas yi ngay gis ci dëkk bi li fi doon am nga fiy gis léegi xale yi di génne ay awraam di ko téléphoné di ko filmer di génne ay awraam nit ko di ko jaaral di waxi dagaa nga gis xale bu ndaw toog di yàq yaayam musiba nga jommi naan li lan la nii wallahi lesi du neen des fois ngeen ngeen critiquer xale yi fekk du ñoom am na leen xale yi di leen def loo musiba di leen wax loo musiba parce que sëñ Tuubaa du ay caaxaan dafa am benn waay joo xam ne borom xam-xam la yàlla dafa defoon mu doon chauffeur chauffeur bu bëri xam-xam dugg ci otoom doon dawal xaaji guddi xale jóge ca ca ca sawaar soirée àndandoo seeni groupe di génn di dem jinne ne ci seen biir te yëguñu ko mu jël lumière tàppal leen ko ñu koy saaga te lumière boobu moo dàq jinne ba ci seen biir moo tax ma la jinne yaa ngi ci biir nit ñi jinne bëggul lumière ñuy saaga waa ji ñoom xale yi ndax xamuñu li xew mun leen pourtant yéen a ngi ma doon saaga mais moo nekkoon ci seen biir moo doxoon ma def leen teg teg leen faax mi ngi noonu kon nañ gën góor góorgóorlu gis nga ko ci jàng alxuraanul karim yàlla mun na laa musal koo jëlee see julli waxtu juróom di jàpp yàlla mun na laa musal ndax alxuraan loo gis alxuraanu ko mën alxuraan mën moo mën loo gis ci àddina kon nag nañ gars yi jublu ci sartal mustaqim tegu ci yoonu sartal mustaqim lii ngay gis ci àddina bi àqir jamaan la ñu nekk te ñu bon loolu daaw woon gis da nga koy gis léegi musiba bi da bari na ah fitna yi bari na Sénégal def naa na kër dëkku jàmm la woon kenn xamul woon Sénégal ci mel nii léegi da nga koy gis nañ gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla. ñu dem ba gis nañ aussi tam li nga xam ne mosul am Sénégal wala bu amoon am ay coono mu jeex ñu réglé ko. Mhm. muy euh, muy jumaa eh, ba am ku ci ku ci ku ci lor. Mhm. ay imam. Mhm. tey Sénégal boobu léegi. ci kenn jóg wax wala déet euh, du nguur gi. ñoo xam ne tey. ñoom ñànk nga ngànk euh, islam bi. wala ñoo ngànk li nga xam ne tey mooy sàmm jikko yi. dégguñu leen ci en tant que yow lan ngay wax tey sàmm jikko yi wala naa nga doon tey soirée la wala ne musicien wala benn fet euh, Ouzin Keita day lu day waar lu ñaaw lu day waar loo xam ne dama ko ñaawlu lool lool lool lool nit ku deful dara dem bi tabax jàkkam yéen ñëw ngeen di nodd ngeen ne ko doo fi noddee contre ko mais la c'est quoi beneen islam ba de ñoom ñoo ko bëgg a xaral seen bopp ñaar waaye benn lislaam ba de benn yàllaa fi ne benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, mooy Seydina Mohamed moo fi ne yeneen yonent yi fi nekk yëpp bi yonent bi ñëwee muy Seydina Mohamed la effacé yàlla effacé yëpp maanaam teg fi bii ne bii mooy euh, li nga xam ne mooy euh, diine bu dëgg dëggu bu gën a dëggu bi mooy bii newuñu bay nag du dëgg ndax boo gëmul ñoo nga xam ne ñoo fi jaaroon gë gëmoo Seydina Mohamed yàlla yàlla boolewu la ci jullit yi il faut nga boole ci ñi fi jaaroon boole ci ñooy juróomi yonent yi yàlla gën a fonk waaw yàlla mën laa mën mën laa boole ci jurit yi kon nag nañ gën a rafetaay taxawaay defaratal taxawaay yi rafetal jikko yi bu demee ba imaam di di di yeble ñuy rey ah ah, ah ah ah doy na waar de sëñ bi xanaa kon li ma doon wax ñëw na xanaa li ma doon wax ne dëkk bi li koy yàq am na li leneen loo xam ne mu ngi ci biir nañu sange dëkk bi sange ko ay ndox mu gën ñu sange sange ko ay deret li ma du dañ de jinne yaa ngi bi dëkk bi di def di def di nit ñi de di def loolu nit ñi lu bon tey xamuñu ko nañu góor góorlu ci suñu bopp teguwaat ci yoonu saratal mustaqiim bàyyi fitna bàyyi alali àddina ko ko ci bàyyiwul ci musiba ngay jaar ci musiba ngay def dañ ci yàlla musal lii lu ñaaw la jàppandi di ko dóori marto di ko dóori ay jaasi defu la waxu la bu la defoon sax dafa jaadul waxuma la moom la defulee dafa ñaaw te nag lu ñu war a wax la ñoo ñooñu sanction dafa war ci ñoom bu baax a baax sanction dafa war ci ñoom bu baax baax yaa ko laaj yaa ma posé question bi mais ñooñu sanction dafa war ci ñoom bu baax a baax ndax am na ci benn doomu eh, kii waa ji ñu rey def naan da ngeen dagg baaraamu xale bi wala dañu dagg loxo bi non voilà xam na kooku yàqal nañ ko àddinaam ci loo xam ne ñu ko fenn waaw kay léegi kook nu fu muy jaarate ba liggéey su ko yàlla dimbaliwul en tant que jullit ak jullit waaye ñun kon ñun fu ñu jëm lii ñaaw na ñaaw na. waaw may li ma la wax rek xam nga <laughs> sëñ bi actuellement ni gars yi ku ci nekk sa bopp nga tal ku yëbu def ndànk ku yëfu dal ku yëbu dal ku yëbu def ndànk yàlla may dimbali jaam yi daal yal nu yàlla jàppale jimbali ñu mais léegi lay xew ci dëkk boobu na ma tudd eh, ci pir ñaawlu naa ko lool te la askan bi yëpp ñaawlu na nag daa taa ñu ko ñaawlu bari nañ nag te yaakaar naa ne sanction na dina am te sanction dina am incha allahu rabbi ndax naa xam naa ne nguuru Sénégal eh, ñu ngi ci bàyyi xel ndax dañuy nu ñuy nu ñuy liiree réseaux sociaux yi di ko xool ñoom it noonu lañ koy xoolee te def naa dañ ci bàyyi xel te dañ ci def ay sanction a euh, àdduna a koo yow lan ah dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax a baax. di ñaanal Papa fee mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jóge di ko di ñaan nag eh, li mu fi bàyyi yàlla na ci yàlla def barke ci daraja Seydina Mouhamed kooku ñëpp war a dem toog ci taxaw ci sargal ba ndax ku ne xam nga ne pa Papa Thione euh, porte de voix la woon euh, daan na wax ak askan wi daan di wax ak euh, wax ak xale yi ndaw yi mag yi ba ci ba ci ba ci ba ci ba ci ñangambaar yi ñëpp da doon waxal ku ne xam nga ne Papa ay ay woyam du woon ay woy ay wax la woon waaw mu doon nag nit ku baax nit ku ku dal nit ku jàpp ñàmburam nit koo xamit indil nañ fi doom joo xam ne tubarkalla macha allah doomi ñëpp la tubarkalla macha allah kon ñëpp war nañ faa dem sargal ko ñaanal ko ñu mënta dem ñu toog fi julli ñaanal ko ndax jullit moom foo toog rek jul ñaanal fa nit yàlla fekk yàlla jël jël ñaan nga yëbbal ko ko incha allahu rabbi na ñëpp taxaw euh, ñu sargal euh, ki nga xam ne mooy euh, Thione Seck mi fi jóge di ko ñaanal yàlla fee mu nekk daal yal na ko yàlla yal na ko gënal fi mu jóge ci darajay Seydina Mohamed jabar ji yàlla bàyyi fii ak yu mu fi bàyyi yal na ko yàlla teg loxoom darajay Seydina Mohamed ñëpp dañoo war a dem nag ndax ku ne xam nga ne porte de voix la woon euh, te ku ne xamoon nga ni toon sekk ni mu meroon ci dëkk bi euh, Sénégal Sénégalam la woon tey woon na Sénégal ci ci ñaari loxoom kon nag ñëpp war na ci góor am na nag ñoo xam ne moom moo leen jàngal métier bi mu yoroon ba ba teg leen ci axe ba tey ñu ci am seen dara kon seen sekk am fi def macha allah monument maana daal ci Sénégal ku ne xam nga ne moom euh, ba mu daanu ku ne xam nga ne euh, kii daanu euh, ni ñu koy wax xale ni koy waxee ni ñu koy waxee nu mu tudd ci société moo daanu kon kooku kooku kooku bu bu bu bu bu dëddoo àddina ñu koy sargal ñëpp war nañu mën a dem bu ñu xam ne seen i tànk dañuy métti rek ba na mënuñoo dem nañu sukk ñaanal ko ci daraja Seydina Muhammad ak wépp wayu daw la maa nga fa incha allahu rabbi ci kàttan suñu borom incha allah incha allahu rabbi maa nga fa dëgg ma fa fekk bu neexee yàlla incha allah incha allahu rabbi maa nga fa mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. lu bon lu nekk di ñu ngi fi boo xam ne ñu ngi naan dafa diggante euh, ki xam ne mooy Cheikh Bara mu jëm ci Ousmane Sonko ngi nga iñaane ko ne xaaral foog ma jaare pour yàqal ko tey te xamuñu lan la tey lan ngay wax ci tey leneen dinaa leen ko yëgal de barki sëriñ Bamba laa leen di jëñal ku ci bàyyul di yàq nit yàlla nit koo xam ne dafa jege yàlla parce que dafa ka am wax la benn affaire nit a ngi sol simisam def jiinam def saagam comme ni nga defee ñu defee ne du dara fekk waaye yàlla suñu borom la nañu bàyyi yàqamte bi senegal li fi am léegi amatul fenn dangay ngay gis ko def ajoom toog yàq nit wax ci nit lu bona bon bona bon bon defe na yaa ngi def lu baax te yàlla ku ne xam nga ne yàlla lim bi ne la ci gën a bëgg kon nit dafa war a fonk doomi aadama ndax ni yàlla fonkee doomi aadama yaaxante bi war ngeen koo bàyyi moo tax suñu réew mi suux buñ ko bàyyi dañuy gën a suux di leen di leen def nañuy rafetoo nañuy def lu rafet di wax lu rafet li may wax chaque jour ne leen Sénégal dañu war a am dañoo xam ne ñun te pays référence lañu buñ demee ba tudd ñu pays de la Teranga Teranga dafa war a war dafa war a lu baree bari mais buñ ba toog suñu biir di yàqante suñu biir di wax waxante lu bon ay jullit koy def te li yàlla wax ci yàq doomi aadama li yàlla wax ci def xotti war ma doomi adama dafa doy waar dafa doy waar sëñ bi ku ko ci bàyyil ku ne billaahi wallahi doo mujj fu baax man maan faat maa ko wax ku bàyyiwul di yàq doomi aadama ci suuf nga jëm billaahi wallahi te la koy waxal kaa benn affaire euh, Ndiol Fouta daa ko wax doom maam Abdou Aziz da baax yal yàlla ko yokk ay leeram daan na wax ne kuy nit kuy toog di waxal ci nit lu bon la koy waxal doo deete gisuloo ko yàlla ko wax ci alxuraan doo deete tegoo ci sa bët kon na gars yi bàyyi xel ci loolu bàyyi leen yàqante bi li rek xew ci réew mi léegi ñaaw na rafetlu ma ko te lu bon bon la buñ ko mënee bàyyi nañ ko bàyyi nañu bàyyi yàqante bi te Ousmane Sonko moom ku ko ci bàyyiwul ku ne ku ko ci bàyyiwul ku ne <laughs> baax na daal laa ilaha illallah ku ko ci bàyyiwul ku ne nañ dem ba ci kanam du sama kii dama xam Ousmane ko Sonko li mu làmboo ñun la ñu xam yéen xamu leen ko nañu bàyyi Ousmane Sonko nañu bàyyi jàmbur lu waay jóg ne Ousmane Sonko lu waay tëbb ne Ousmane Sonko pourtant kenn dégg ko muy wax ci nit moom buy wax moom kii war a waxal lay waxal muy adversaire am moom rek lay waxal mi ku jóg ne a Sonko lu waay bëgg a wax jaarale ko ci benn nit ne ko demal ci Sonko waxal ci réseaux sociaux fay ko mu toog Sonko Sonko lii Sonko la nañ ko arrêté nañu bàyyi jàmbur nañu bàyyi jàmbur encore une fois bàyyi leen jàmbur macha allah foofu laa yem. waaw mhm. ah, sant nga sant yàlla bu baax di julli Seydina Mohamed di leen wax ne la nag bu soobee yàlla euh, coupe du monde bi ñu jëm loolu moom euh, soxna Awa Fall maa ngi yéen la. dañ koy dem ba jeex tàkk ci kàttanu suñu borom incha allahu rabbi dañuy am ndam ci kàttanu suñu borom nañ fa def lu mucc ayib ci kàttanu suñu borom yàlla dinañu dimbali incha allahu rabbi nañu manko euh, bokkoon euh, euh, xàccandoo dóorandoo ci kàttanu suñu borom xale yi nga xam ne ñoo jëm ci coupe du monde bi dañ fay am jàmm de kon nag ku yëpp def ci jàmm ku ci def safaan ba sa kaw lay kopp waat ci kàttanu suñu borom ndax ñun teel nañu équipe suñu bopp sant yàlla bu baax julli ci Seydina Mohamed di santaat yàlla di nag ñaan yàlla jàmm am ci dëkk bi ndax lu jàmm jàmm ko gën di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal uh, sunu kilifa diine jàmm di leen ña yàlla may gudd fan ak uh, muy ci kilifa diine yu Tuubaa ak ñëpp daal kilifa diine yëpp ah, ah kay. direct <laughs> Idali ñeme nga de.